yeah lego El Diaz toj fépp big képp ku mu mës a xeeb ñame defi ñame def lu rëy xulli bët yi bañ a xeef 7 jours sur 7 laay job di ko xeeb defuma rab bu wow di bégal gel yu tooy xeeb duma rapport bu tilim set wicc laa def feesal saal ku mën na def sa MC wax rek lay def fu ne laay dem ñëwal Metzo my chef ëpp leen seng seng beng beng maa leen gën teng maa ngi si job bi may ma léegi rab bi jéegi frontière bi indispensable mel ni air bi teg fi tànk te duma teggi rab ba tekki succès tekki <laughs> asalaamaaleykum internetu Sénégal tey ñu dalal fi El Diaz le 4 janvier moom moo yëngal grand théâtre def grand théâtre petit théâtre <laughs> feesal ko dell ñëpp ñëw wuyu si ko mu nekk benn spectacle bu énorme mu defandoo ko Youssou Ndour ah ñoom yaay ñëpp fees la donc ma bàyyi la nga nuyoo déjà ak say fan say ñu lay seetaan. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu euh, waa Sénégal di nuyu képp koo xamee yaa ngi seetaan fii ci Sénégal di la wax di la nuy nuyu bu sell Euh, pour ñëpp euh, di la wax daal kontaan nañ def émission bi ak yéen. <laughs> Euh, mooy sa premier passage après spectacle bi. Mm-hmm. gis naa dem tamit seen TV. Mm-hmm. donc le 4 janvier ba nga koy ba koy jël date bi déjà est-ce que xamoon nga bi day joué. non xaw ma ko woon parce que ñu ngi ko jël six mois avant. Mm-hmm. parce que avant tout maa ngi remercier Keïsi Bousso directeur général du Grand Théâtre jàppale nañu bu baax. parce que nga def événement bu toll noonu amoo benn sponsor. Euh, mu jox ñu salle bi jox bu jox bu neex. xam nga mhm. di wax daal soxla nañ genre yooyu ci réew mi. Mhm. di remercier Kaysi Bousso parce que tey événement bu réussir bokk na ci. Mhm. léegi Youssou Ndour mi tëgg même jour est-ce que tiitoo woon tuuti. non tiitu ma woon tiitu ma woon tiitu ma woon parce que loo jël xam nga nga am équipe bu baax équipe boo xam ne dañ lay jàppale te séntuwuñu dara euh, luy ñëw. maanaam xaalis bu ñu leen di fay wala genre donc pour nga réussir foo ëpp grand théâtre sax loolu c'est possible. Mm-hmm. mu nekk benn spectacle boo xam ne nee naa surprise pour ñenn yi parce que ñu bëri dañoo yaakaaroon ne dina nekk échec. ah nga ñëw feesal ko déjà nga ñëw dis monde bi ñëpp ñëw waa Médina waa yi leen dëkk yi bien vrai que ñeneen nit ñi nee nañ Médina dañ la jàppale dañ la sotal mais ñeneen ñi gis bon ñëwuñu woon mais am nañ ci ay écho am na ñeneen ñu jóge fu nekk di ñëw pour seetaan El nan nga gisee ba nga gisee public bi noonu ñëw wuy waaw comme li may wax ah euh, bett na ma bett ma euh, euh, su ma nee su ma nee bett na ma. Mhm. su ma nee bett ma mooy liggéey nañ ko. su ma nee bett na ma mooy yaakaaruma woon luy nekk si biti mooy ëpp lu nekk si biir yaa ngi comprendre ba pare di wax carrément boo xoolee quatre-vingt pour cent ñun dugul ñëpp Medina lañ dëkk parce que xam nga rek ñun ah, booy town yi non ñun booy town yi dañoo ñëwee ay saf-saflu balaa ñoo ñëw dinañ maquillé wu góor yi mm-hmm. defaru fii xaar dernier virage bi doog ñëw mm-hmm. mais macha allah yàlla def nañ ne El Diaz comme lu may yàgg wax rek ginaar kenn moo koy moom mais bu bu yooxoo fajar day yee ñu bëri. Mhm. xam nga El Diaz la dëkk xam nga eh, Medina mën nañ ma moom mais dama am yeneen yeneen base ñoo xam ne dañ may bëggee à cent pour cent. Mhm. fu mel ni parcelle unité six ko ñu ñoom Ablaye Kane war naa leen seeti. Mhm. ku ci mel ni Géejawaay ko ñu ñoom Ahmed Sultan ku ci mel ni eh, Tëngéej Rufisque foofu yëpp dañ fa am ay base yu yoo xam ne dañuy bëggee El Diaz à cent pour cent di leen wax ni ñooñu ñoo tax tamit événement bi fees ak waa Medina mais du waa Medina. kase quoi. Mhm. alors spectacle bi avant am na ñu la xeeboon nag nañu waxante dëgg ñu naan booy bi bon kiiwul taxawul bokkul ci ñi nekk au devant ak yooyu noonu réponse la pour yow ab spectacle bi après spectacle bi lan nga wax ñaw. non non non lan nga lan nga wax. man aw ma lu may prouver kenn. yaa ngi comme naan comme li may wax chaque jour wax naa ko waxaat ko. Mhm. man jàpp ma ni sax. musique bu may def am na ki ma ko bokal man damaa jàpp ne sama xel musique bu may def man kase maa koy def bokkuma kaa kenn yaa ngi comprendre dafa dama jàpp ne man rek man maay artiste biir Sénégal maa war a bégal ñëpp kon du ma am pression. Mhm. yaa ngi comprendre kon aw ma lu may prouver kenn man damaa am sama sama style boo xam ne man kase maa ko am di ko wane nànk-nànk nit ñi di ko xam nànk-nànk léegi kay mhm. nañ ñaan yàlla toog si rek boo daak si ndaje mais yàlla ba mhm. mais mais euh, amoo ci woon écho bu la metti avant spectacle. non xam nga tey Youssou Ndour sax bu wootee. am na ñoo xam ne peut-être dinañ ñee du réussir yaa ngi comprendre loolu loolu ci àdduna loolu kenn mënu ci kenn mënu ci dara mm-hmm. mais euh, sama genre gi ñooy won ñooy won yenn nit yu faible yi que àdduna nit mun nga am lu ne parce que ku am lu ne kooku nit la comme yow yaa ngi comprendre mm-hmm. moo tax euh, nekkul nekkul daal ay affaire de dama war a prouver lii wala dama war a def la parce que grand théâtre bu ñu waxantee dëgg mbalax maa ni ñoo ko ëpp ñu koy feesal rappeurs yi des fois dinañ am spectacle mais du gaaw a fees noonu noonu Sénégal ba tey mënaguñu ràññee ba léegi rappeurs yi ñoo dàq mobiliser ñoo dàq feesal ko mbalax maa ni mais grand théâtre moom doo leen ko feesal non bul wax loolu parce que boo xoolee tey mhm. boo xoolee tey yow mbalax maa ni su ma la nee ñan ñooy feesal soo ma nee Youssou Ndour nee ma Wally Seck nee ma El Hadj Keita koo ci teg day am problème. yaa ah, ngi comprendre ah ñoom ñoom dañuy feesal de. comme kan wala xam ne dañuy feesal de. comme kan. Hmm? comme kan na bu ñu tëggee day yow yow yow ah, nag. a bëri mais <laughs> rappeurs yi am problème maanaam ba tey yaa ngi lim. ba tey yaa ngi lim. Mm-hmm. yaa ngi comprendre ba tey yaa ngi lim ñun ñu ngi ci musique bi xam nañ li fi xew mais tey rappeurs yi tey booy wax ñuy feesal doo ko doo mën a lim parce que dañuy bëri macha allah xam nga Eldiaz day feesal Paco Briz day feesal Dip day feesal Ngaaka Omzo ak Akhlou Brick Express day feesal estatu Diourbel mun su ma lim non bul lim nga xam jàllal feneen mhm. alors bu ñu jàllee ci spectacle bi entrée bi sànq maa ngi ko doon seetaan euh, nga def accoutrement noonu di tiitalaate noonu xaw ma pël nga xaw ma nan nga dikkee noonu pourquoi choix boobu waaw waaw yàlla jàppale nañu euh, tukki nañ. Mhm. xam nañ lu xew yeneen dëkk yi. Mhm. yaa ngi comprendre léegi expérience boobu mu am moo tax musique bu ñu am ci tamit benn expérience yaa ngi comprendre. Mhm. maanaam nit munoo tiitaroo lu dul sa aada ak sa cosaan li nga moom rek nga mën a tiitaroo yaa ngi comprendre. te man sama musique boo ko boo ko déggee li nga ciy dégg di nga ci dégg sabar. Mhm. xam nga di nga xam su ma rabee di nga xam ne kii sénégalais lambda mooy rab yaa ngi comprendre. Mhm. moo tax jour boobu ma indi Albouri parce que ñu bëri dañ may woowee euh, Albouri que sama turandoo moo géewoon l'exil d'Albouri Sorano. Mhm. depuis boobu ma juddoo ñu may woowee Albouri moo tax euh, ma dem ba si biir sa euh, bii mooy deuxième fois mooy solo comme Albouri di ñëw ci kaw seen. voilà noonu la demee. d'accord moom ba mu am tamit ñu bëri jàppale nañ la artistes yi wuyu si nañ la y des animateurs qui sont venus aussi pareil donc lan nga gisee loolu ban lien nga ba ñu ñëw jàpp waaw waaw xam nga rek euh, Sénégal am na ay animateurs yoo xam ne dañuy teel a gis lu baax ràññee di si jàpp sax xam nañ ne peut-être yàlla rek a xam mais xam nañ ne lii ku si jàpp peut mën na dem. Mhm. Euh, di di di di di di profité waale tamit di di jégalu sama yenn moroomu artistes yoo xam ne dañoo ñëw ba ci bunt bi ñu ne leen doo leen dugg parce que saa bi dafa fees. amul mhm. artiste amul journaliste amul dara heure yi kenn dootul dugg kenn dootul génn. Mhm. ku ci mel ni Elzo Jamdong Edmond xam nga Bass moom mujj na ko lijjanti bu dugg <laughs> yaa ngi comprendre. di leen wax daal. Euh, relation bu nice ak ñu mhm. gis li may def ma mu intéressé leen ñu ñëw ñuy ànd di suñu xew xewlee ma dem man tamit suma ma xewlee ñu ñëw. Mhm. Ah, après Grand Théâtre su ma la doon laaj fan nga gis sa bopp ci hip hop bi am parce que Grand Théâtre c'est quelque chose tamit ban étape nga war a jàll instant bi. no comme li ma waxoon sànq laay waxaat man jàpp ma ni comme am na ay ay concurrent yaa ngi comprendre. non ban xam nag ma ne ci hip hop bi. maanaam tey man dama am benn mission mission boo xam ne. foog ñu dem ba ci kanam tuuti nit ñi mun comprendre yaa ngi comprendre mais amul ay fan nga war a toll ci hip hop bi wala lii man dama am sama monde bopp te sama monde bopp boobu laay imposer sénégalais yi ku ko xas ba découvrir benn yoon ku ko ñam benn yoon doo ko bàyyi mi ngi mel ni saay su ma tëggee su may tëggaat damay dem fu gën a mag te fans yi ah, dañuy gën a yokk mhm. yaa ngi comprendre non mais da nee ci hip hop bi da nga préciser booy séntu sa bopp <laughs> non fu may séntu man xam naa ko sama staff xam na ko quoi yaa ngi mhm. comprendre parce comme li ma la wax joxe nañ avance xam nga te benn indice laay wax pour képp ku ñuy setaan te fila laa koy waxee un an ci kanam wala un an demi dinaa ñëw ne lu ma leen waxoon mooy gis nga àdduna ku bëgg am lu kenn amul da def lu kenn deful bëgg am lu kenn amul nag. <laughs> mais seen rab bi dafa bëri concurrence. jaxasoo waaw mais man nekkuma ci yooyu man nekkuma ci ah, yooyu. ah nag El Diaz yow moom bon nekkoo ci yooyu mais mais dafa xumbu rab bi fu mu nekk xëccoonte la boo boo xamul boo bàyyee tuuti gaa yi dañ lay raw de. non man nekkuma ci yooyu parce que man dama am benn benn benn xel quoi comme 16 mhm. million sénégalais lañ nekkul ñëppay déglu musique boo xoolee ay 11 millions wala 10 million ñooy déglu musique mhm. léegi loolu dafa ndaw loolu dafa ndaw léegi loolu noonu waruñu ko tas loolu benn public lañ ko war a def waruñu def public gu Waly public gu Youssou Ndour public gu rab bu dëgër public gu rab nooy kon day day tas xam nga léegi 10 millions yooyu na artistes yëpp jéem ko rek ku nekk loo mun nga jël jéem a jël lépp mais waruñu ko tas quoi non xëccoo ma kenn man du ma xëccoo mhm. du ma xëccoo mhm. te artistes ñëpp bien sûr ñagas ñagas mënul ñàkk ñagas ñagas nekk ak sa frère boo bokkal ndey ak ngeen nekk si kër des fois ngeen xuloo ñagas ñagas mënul ñàkk quoi. Mhm. Mhm. alors si sa maa ngi doon xool sànq sa dernier clip. Euh, mhm. champion ngay def ego trip. temps yi dafa xew nag temps yi ñëpp a jël ego trip. pourquoi loolu noonu nga bàyyi ba def ñaata année de carrière deux ans trois ans. de carrière après nga dem génne son boobu. <laughs> yow loolu ci la wax ci champion nga. waaw waaw champion euh, ego trip la mais ego trip am ay message quoi xam tey parce que bi boo xoolee. maa ngi naan kenn du ma yàkkal du ma nangu ku ma yàkkal xale laa ñeme risque bëri fit dama neex a faral loolu noonu te yow boo jëloon sa téléphone nga jàkkaarloog moom di snap yow soo koy woo day soo koy way day adéquat ak yow mm-hmm. maanaam tey xale bu nekk war nga nekk xale war nga am fit war nga ñeme risque xam nga parce que ku dul tànte doo am dara léegi gel bi ñëw ne dëkkee daan loolu du champion kuy jàpp te bàyyi koo koy champion. yaa ngi mhm. comprendre ba tey ñi ngi jéem a euh, yee ndaw ñi ñi ngi jéem may force yenn ndaw yi yaa ngi comprendre. Mhm. donc du écotrip à 100 pour cent quoi même man nu may bindee sax day mel ni kuy wax man mais boo jëloon tey sa téléphone di di filmer snap. yow boo ko doon way day mel ni yow laa bind. ku ne da ciy gis boppam ku ne da ciy gis boppam voilà loolooy moo. d'accord waaw ego trip bi nice na maa ngi koy seetaan clip mm, amul mm. saaga amul kii moom daal mm. yow daal sa rab dafa xaw fii saaga fii. wala sama rab dafa am yar. dafa am yar ah eh, dafa am yar est-ce que soxla na loolu. yar ci biir texte parce que ah, ku ma jaay réew nag gis beneen visage. <laughs> yow xam nga laa juddoo nag fa laa màggee. <laughs> mais est boo leen di bind seen texte yi di ngeen sóoraale ñu koy déglu. que xale mag ñëpp. bien sûr bien sûr man damaa bëri damaa bëri fans xale yu ndaw. Mhm. jigéen ñi ñoo ëpp luñ may déglu yaa ngi comprendre xam kon euh, su may bind peut-être sax ñu laay gën a sóoraale quoi parce que xale yu ndaw yi suñu gisee ma def lu ñaaw rek dañuy foog loolu lu baax la te mun nañ ko toppandoo te loolu laay bañ. Mhm. Mhm. moo tax sa texte yi da nga koy xool ñu koy bindee. waaw waaw waaw waaw waaw. <laughs> nan nga gisee mouvement bi instant bi comme li ma la wax rek na bruit nañ ko <laughs> clash moom yow jàlloon nga ci bañ xam sa clash nga dafa koog Lamine Mbaye fii yàlla na ko yàlla yërëm mais euh, nan nga gisee évolution déjà buñ leen di tagg rappeurs yi dañ naan clip yi déjà dafa am qualité. yéen yéen bokkoo leen ak euh, yeneen yeneen mbalaxmaan yi wala yeneen sonorité yi ñoom seen seen clip day am niveau mais teewul dafa am benn genre yaradiku bu nekk ci rappeurs yi lan nga gisee ñuy wax loolu. waaw man à part saaga yi daal laa xam ne mooy affaire yaradiku quoi loolu moom wax dëgg yàlla moom du ma ci mës a ak nit. surtout mhm. tim jël nit jël yaayam di ko tegalal ay saaga loolu moom waaw. xam nga loolu am na ñoo xam ne boo leen ko defoon tey dañuy jël rab tegee ko ne jéem a jël sa bakkan wala jéem jéem a jéem la def dara parce que ay nit yoo xam ne bëgguñu mhm. ko wax seen yaay dara la quoi xam mhm. moo tax yooyu daal la contre affaire u saaga yi mais à part yooyu moom clash si hip hop la boo kenn mënu koo dindi mhm. te kalan nekk si biir hip hop bi nag yow ban kalan nga non li ma waxoon sànq laa waxaat rek man. yow sa bopp yow waaw man ii wallaahi laa <laughs> man man écrit écrit individuel. di bigam nag sama waa studio jéegiraay bu baax jàpp nañ sama événement. d'accord ci ci ci album lan mm. instant bi 2020 bi 2019 bi tëj nga ko ah nga ko ci. Mm. commencé 2020 bi sax ak mm. spectacle a a xaaraat ci El Diaz mm-hmm. boo xoolee chaque jour dem. studio chaque jour que jëfee damay dem studio yaa ngi comprendre. Mhm. nañ xaar single yu bëri album moom. maa ngi liggéey sama album xam naa nan la war a mel xam naa ci ban esprit laa ko war a defee laa ko war a defee mais album du ma génne album tant que sama tour daa am fu ma ko bëgg yeggal su yeggee foofu si laay génnee album incha allah. Mhm. mais yaa ngi koy pare ak yeneen bien sûr bu baax a baax sax bu baax bu baax sax bu baax. d'accord benn featuring nag est-ce que di nga ci xalaat parce que yéen seen featuring yi à l'étranger xool kenn koo xam ne yéen a bokk style. Mhm. jéem a def bien sûr bien sûr grand théâtre bi mun ubbil na ma ay porte yu bëri. am na ñu may contacter pour liggéey man xam ma ci style bu may def. wala mhm. léegi nañ toog seetaan rek <laughs> doo doo mun wax nag mais nañ toog seetaan rek. Ah, si style buñ ci ñëwee tamit dafa xaw a rax yaa ngi koy wax sànq mbalax booy booy rap dañuy xam ne sénégalais mooy rap wala africain mooy rap euh, nga xaw a nduroog style tuuti ak Ngaaka Blindé yéen ñaan yéen a a nduroog yenn saa yi ci yenn affaires yi pourquoi nga tànn style boobu noonu baarab dur ñëpp dañ mën nañ fecc sa morceau pourquoi nga tànn style boobu noonu. non man moom pour dire vrai niroo maa kenn. yaa ngi comprendre rab boobu mooy dee sax bokk naa si ñu ko fi njëkk def loolu kenn du ko dindi voilà yaa ngi comprendre mhm. peut-être am na ñu bëri bu ko commencé def dañ koy jëlee si man yaa ngi comprendre parce que euh, Omzo Beat ñu bëri dañuy ñëw naa ko tëggal ma comme bosu jazz bi wala genre yooyu noonu daf ma koy waxaat moo tax ma ne la man niroo ma kenn xam nga. Ah, kon comme voilà ba pare tamit nekkul tamit loolu kase laay def am naa yeneen son yoo xam ne rap classique la am naa son yoo xam ne rap hardcore la peut-être yee moo gën a fës. parce que lu tax muy gën a fës en général ñu ëpp ñu may déglu peut-être si loolu lañ ma lañ ma lañ ma bëggee. mais teewul tamit incha allah dinaa def leneen quoi. Mhm. Mhm. mais mais yaa ngi ko fi njëkk def mm, yaa ngi koy wax sànq ñu bëri ci yow lañ ko gisee. bu mhm. rab bu free bi. dañuy fecc sa son. ah waaw loolu ah, dafa sa biir son. Mm, mais léegi léegi léegi nga gis ñeneen ñi di ko def en plus ku mel ni diib ku mel ni keneen ak keneen mu ngi def loolu lu mel noonu. lan nga gisee lool te pourtant Fata waxoon na ko fii gars yi di ko clash bu kaas. non mais mais mais lu baax gaa dañ koy toppandoo c'est normal. xam koy tëkkaleeg Fata ba tey style yi bokkul. parce que Fata bosom man maa ngi ko doon déglu yaa ngi comprendre Fata moom kii la daan def moom mbalax la daan def carrément yaa ngi comprendre da doon def mbalax rab ci kawam. Mhm. mais ñun. ah mais yéen noonu euh, ngeen di def. non non non non ñun dañuy mélange yaa ngi comprendre maanaam mhm. tey suñuy xam nga temps wu mbalax ak temps wu rab bokkul yaa ngi comprendre léegi ñun dañuy jël comme euh, like teg benn bit boo xam ne boo xoolee hip la wala trap la. léegi lu ñu ciy yokk nag yu ñu ciy yokk affaire yi ñu ciy yokk mooy dem ba da koy fecc doo. Mm. genre yooyu noonu noonu la demee. Mm. d' accord mm. alors ma bàyyi la nga tàggatoo wala lan nga bëggoon a wax lan ngay préparé pour say say fans waaw di leen wax kontaan naa ci invitation bi. Mm-hmm. di leen wax euh, dinañ jéem a def dara loo xam ne dañ koy may ñu duggul woon ci grand théâtre bi loo xam ne peut-être concert wala lu mu munti doon xam wala voilà dinañ jéem def dara pour ñoom incha allah di leen wax ñoo ngi jégalu bu baax nekkul woon suñu coobare euh, di jox gars yi di daje next step bi incha allah di leen wax nañ waajal ay son yu bëri dina ñëw ci 2020 bi incha allah dinaa leen gàtti quoi. ñu leen ñu lay wax rappeur bu ndaw bi nag. rappeur bu ndaw ban. naan da ngaa ndaw rappeur bu ndaw nga. waaw a da nga koy nangu rek amul problème ama àdduna moom nit nit nit parce que tey yàlla dafa def ma nekk murit. Mhm. nekk taalibe Serigne Touba maanaam nit lu ma gën a mën a defee lu ndaw rek damay jël parce si loolu lañ yeree taalibe. Mhm. yaa ngi comprendre bugg ñu mus ñu ñuy mus a woowee ay king yaa ngi comprendre ay yu ay lu ñu gën a xeeboo rek. Mhm. xeebal rek ñu ñu jël vraiment pour dire vrai. d' accord mhm. kontaan nañ ci dalal la. maa leen gën a kontaan. incha respect xaar ci yeneen projet incha allah.